salaamaaleykum waa Pastef salaamaaleykum waa diaspora gars yi xam ngeen ki ah depuis Pastef commencé ba léegi lépp luy image di Pastef lépp lu rafet ñu mën ko teg ba jëmm ji moom rafet Ibrahima dafa mérité ñu ndokkeel ko dafa mérité nu remercier ko parce que depuis Pastef nekk fii ba léegi dafa engagé wu ci lépp luy jëm ci image Pastef lépp lu ngeen gis mu rafet ci Pastef rek jëmm ji la. kon kii yeyoo ñu remercier ko yeyoo na lépp ñu def ko ci moom macha allah Ibrahima lan ngay wax patriote yi. waaw wax patriote yi que c' allah fu mu nekkoon ñu ñëpp la métti woon donc yàlla dogalee ñu gis tey moom waxtaan moom contentement la ñuy am ñaan yàlla rek ñu nekk moom bay ati at nga xamante ni le combat loolu ñuy wax. incha allah frère mm-hmm. lépp loo soxla. Mm-hmm. wax ko mm-hmm. parce que ñun leen rek moo ñu neex. image rafet. suñu image président di rafet hmm. image bu rafet ci président rek hmm. Ibrahima la jëm ji la en tout cas moom moom mention spéciale quoi sama waay la quoi hmm. merci beaucoup Ibrahima